ma kaanu yasna'uun borom bi subhanahu wa taala nee man yàlla tegal naa leen fii ab léeg sax dal naa leen ab mu ne ab dëkk boo xam ne dafa nekk bu dal dëkk boo xamante ne yàlla soota laa wërsëg muy fu ko waaw ñu dem ba mu yàgg ñu daal li nga xamante ne mooy xéewal yi borom boobee borom di indi li nga xamante ne mooy ay xeeti mbas indi leen ay duma solal leen yére fii solal leen yére tiitaange ndax nag loolee la ko indi mooy sababu lañ doon def jëf yi bi doon def jëf yi ñaaw yi doon delloo yàlla loolu moom la ñu yàlla subhanahu wa taala duma mbokk yi fii nañu moytu li nga xamante ne mooy li ma commencé gis ci réew mi mooy jikko yu yi dem nga xamante ne sabote diine sabote diine nga gis ay kilifa yu ñu ay kilifa yu diine lañu su weeru koor jotee dañuy mel ki ñu jëfum télévision bu ne plateau bu nekk ñu invité leen fa te balaa ñu faa jóge rek wax fa njombe boo xamante ne nii day dal ci kaw islam wax fa ak njombe boo xam ne day dal ci kaw islam bu teyee ñu wax ci wàllu yi nga xam ne mooy mariage bu ëllëgee ñu wax ci leneen ak leneen bu ginnaaw ëllëgee ñu wax te nag ñu ne nag ay borom yi xam-xam yi diine lañu ñu ne ay kilifa yi diine lañu lii lii am ci dëkk bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoo taxaw ne dañuy sàmm li nga xamante ne mooy jikko yi war na ñoo mën a defaat beneen mbooloo boo xamante ne dañ naan dañuy sàmm li nga xamante ne mooy pas-pas yi nañ ñu sàmm pas-pas yi jiitu jiital bi maanaam sàmm pas-pas yi ndax bu ñu amoon ñoo xamante ne dañuy taxaw pour sàmm pas-pas yi xam-xam yi di leeral pas-pas ba mu leer bu boobaa bu jikko ñëwee rek day daal di tegu ci li nga xamante ne mooy raay bi waaye boo nee da ngay defar jikko yi te pas-pas bi baaxul ma ne dara du fi baax buñ nee nañu defar pas nañ defar te pas-pas am na keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala